actualité Bala ñuy dugg ci ponk bi nga xamantene euh, mo euh, euh, montagne. Moniel, mon concerné presse bi ndax demb conseil des ministres le président de la république jël na ci dogal jox instruction le ministre de la communication pour mu taxaw ci yenn ay La ta loolu xana mam biram am na xalat ci journée sans presse bi nga xamante Bien sûr. def sa taxawal na ko biram de lek rek la len deful de seetaan ko den. <laughs> barki sëriñ Bamba seetaan naa la seetaanaat la am kha wa kha wa kha wa kha ba pare am birum bi dimbali len bal len bal len dabali rek maa mhm. dabali bien sûr déjà lu waraloon sa frustration ci procédé bi la wala ci argument yu ñu avancer tax ñu amal li ñu amal barki demb wala da nga japp ni amunu lu gënoon am solo ci li warona tax ñu xëy ni journée sans presse. Mm-hmm. que li nga xam ne jot nañ ko avancé. waaw xam nga bu ñu nee euh, euh, médias yi dañuy ñaxtu dañu décider ne dañuy def une journée sans presse yow da ngay xalaat ne avant ñuy agsi ci loolu ma tuddee extrémité am na yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen yu bëri ci wàllu plan d'action bu ñu tegoon. joxewul résultat ñu mujj ne kat fi ñu toll ni amuñu beneen solution bu dul banque suñu loxo ne duñu bind fay télé yi fay rajo yi mais bu nekkee ne ñoom dañu ne dañuy ñaxtu déggoo leen benn yoon ñu ne organiser nañu sitting déggoo leen benn yoon ñu ne organiser nañu rassemblement mu munoon sax comprendre ñu ne pour jafe-jafewu presse bi organiser nañu une marche ñu ne non non nous avons defuñu ko Nous avons nañu rek ku mel man par exemple lundi la xey, lire le matin Walf Quotidien gis euh, patron de presse a décidé nañu ne le lendemain di mardi dañuy dem journée sans presse mu nekk loo xamante une précipitation la de mon point de vue mais également euh, euh, euh, li nga xamante ni dañ ko seet dañ koy ci plan d'action manam mu le lu graduel comme nous ko mhm. expliqué y ci ngay commencé ñew ci bi ñew ci lele bu muju nak ne comme ko awma solution ci lolu yëpp limay may def moy solution radicale bi muy une journée sans presse. parce que mhm. bu ñuy wax Sénégal kañ nañ ko fi mas def da ngay remonter quand même très loin. pour disney journée sans presse amna fi. muy woné né nekul action tout simplement bu ndaw légui nak man ma nous ne buñ défé ba yëkëti lu toll journalistes nous sommes des lu patron de presse yi sommes des mi mën nañu décider suba dañuy dem presse nous sax ñu leen koy yëgal journaux comme ñi mm-hmm. donc lool un premier problème. ensuite ñu avons dañuy les revendications. ngay fa impôt lañ ñuy fayloo Ni ñu koy fayloo wax seeni wax ñeneen ñi ne am na ay convention yoo xamante ni bi signé woon ak euh, la presse loolu tamit dañ ko coupé ñu ne loolu moom moo leen taxa maire ba dañuy organiser une journée sans presse mm-hmm. mu leer na la ne bu ñu la nee impôt wax la ay convention ça tourne autour de ay koppar mm-hmm. ana conditions euh, de travail des journalistes ana liberté d'expression bo xamanteni ne bu yagul dara nasaxoon na fi donc ñu nek ci secteur bo xamanteni ne nii kenn mënu ko weddi dafa bëri ay jafé jafé donc bu ñu demee ba nga xamanteni ne nii nañu né secteur bo xamanteni dafa bëri ay jafé jafé patron de presse ñom tan ci point yi nga xamanteni ni moo leen concerner tourner autour de l'argent tout simplement né dañuy def une journée sans presse dama naan déedéet d'autant que ci patron de presse yooyu wax naa ko waxati ko ñu ci c'est des politiciens donc d'accord ñu ak nguur gi ñu nekk ci opposition bëgg cee yobale médias yi. Mm. mais mu am également ci presse boobu au-delà des patrons de presse politiciens mu am des organes de presse yoo xamante ni man tuddeewuma leen euh, bu nekkee quotidien la tuddeewuma leen des journaux bande annonce la ñu nekk puisque tout simplement bande annonce ngay am loo xamante ni da nga koo bëgg a yëgle nga fay ki nga xamante ne ni yor. pour tout simplement jàllale sa information. Mhm. parce que bu ñu demee quand même ñun euh, euh, euh, sama jaar université la ñu jaar dem école de presse dem ba Maroc jàngi foofu communication su ma toogee ñenn ñi ñu naan ma sa confrère lañu mais mhm. damay am lu daf may métti parce que man ba may jàng ñenn ñi ñu ngi woon ci leneen wala ñenn ñi ñu ngi woon ci ay comment dire ay studio di animer seen mbalax yu tar. donc bu ñu bëggee. ñun ñi nga xamante ne ay journalistes la ñu bëgg ñoom mettre sur euh, le même pied d'égalité ne seeni confrères la ñu warul leen a wax ci ñoom dara mhm. man je ça léegi bu nekkee da nga boole loolu yëpp une presse boo xamante ne nii tur ba lay wuyoo mais doonu ko ay bande annonce ñoo ci gën a bëri ay patron de presse yoo xamante ne nii dañuy politique mais ñooñu ñoo dajaloo ne tey jii nii du ñu euh, def tout simplement euh, journée sans presse parce que jàpp nañu ne pour patron de presse yi pouvoir bi fi nekk Euh, euh, ñoom en tant que acteur politique d'accord ñu ak ñoom pour yeneen bande annonce yi nga xamante ni ñu ngi fi fees fi dell xëy na am na nu ñu leen daan joxe ay annonce yoo xamante ni da leen daan permettre ñu am xaalis ña doon def annonce yooyu gis nañ ne période bi annonce moom doxatu fi mhm. tout simplement ñu banque seeni loxo ñooñu ñoo nekk ci ay jafe-jafe léegi nag bu nekkee ne euh, problème mu koppar ak problème de positionnement moo bëgg a tax ñu engagé ñu ñun ñëpp Euh, euh, journalistes yi ci seen grève boobu mhm. dañuy taxaw ñun ñu ne non non puisque quand même yi traversé nañu fi ay période yoo xamante nii mais c'était tellement terrible te gisuñu kenn koo xamante ne nii taxaw na loolu fullaal la faydaal la ba nga wane ci benn taxawaay. oui mais bu dee benn ci poñ yi nga avancé mooy koppar yi xanaa maam Biram koppar yoo xamante ni ñoom buñ ko jotee mooy liy dundal kër gi ak waa kër gi te boo ko waxee reporter yaa ngi ca. Mhm. ak ñii leen niiru.

Euh, impôts yi nga xamante ni ñu ngi koy jëlee seen i salaire te patron de presse yi di ko fa jëlee di leen di wax ne c'est pour contribuer ci état bi defuñu ko loolu mu nekk un premier problème ensuite bu ñëwee ñu ne la euh, ay dafa am ay convention yoo xamante ni état bi décidé na dagg ko mm-hmm. nga yërndu convention yooyu ñan lay bénéficier mais man ay hauts terrains laa fiy gis ño xamanteni ni wax deug yalla kenn mënul wax ne euh, ay journaliste la yu nekkon ci terrain bi di def lo xamanteni ni liguey bu jëm ci walu journaliste la. Mm-hmm. donc <laughs> muy woné nekk tout simplement les reporters les journalistes quelque part dañ leen bëgg comme les agneaux du sacrifice. Mm-hmm. mais li nga xamanteni ne xew. problème patron de presse la nekkul problème de la presse de manière générale parce que tay man buñu néma won euh, euh, les médias amener des difficultés tay naka lañuy def ba euh, euh, indi ci ay solution limay may wax moy le code de la presse m'a dégg le président de la république mu ne nañu ko appliquer intégralement mais lolu journaliste déjà en tout cas pour ñi ci xam li nekk ci code de la presse bi mhm. man euh, tok na fi mané ci code de la presse bobu amna ci articles yo xamanteni minimum mhm. article bu ci nekk rek mën na nasaxal journaliste mhm. pourquoi jusqu'à présent dégguloo manam kuréel yi nga xamanteni ñoo seq walu woowu organisé wu nekkat code de la presse bi nam ñun au départ xeexoon nañ pour ñu teg ko mais amna ci lo xamanteni état bi daf ko cee dugal te ñun ànduñu ci. ay ndëgg sërëx parce que comment euh, comment ça s'est passé. Mm-hmm. dernière manifestation bi nga xamanteni ni Lamine Niass bokkon na ci en 2016 fële ci place de la nation. luñ doon wax moy dañu bëgg ñu euh, euh, comment dire secteur bi anarchie bi nga xamanteni ni commencé nañ ko ci setlu ñu dal di koy encadrer à travers un code comme nous amé code minier comme nous amé yeren code de sorte que journalisme du nek secteur bo xamanteni ne rek loi neex def mais également dina am ben encadrement bo xamanteni nii mooy tax état bi am fo xamanteni dina ko fa mëna jappalé mais biñu waxé lool ñu mhm. né léegi dañuy organiser ben genre séminaire pour waxtan ci contenu code de la presse bi mhm. ay journalistes ak yenen acteurs dajé fofu waxtan né li lañuy def

waxuma la ministre waxuma la kenn mais le préfet. le préfet rek mun naa ñëw si. très bien xam nga loolu bu ne mu ngi ci code de la presse ay journaliste kat bokkoon nañ ci ba ñu koy togg mais dem nañu ba ci biir pouvoir bi nga xamante ni moo fi nekkoon daal di leen dunjuy jaar ci ginnaaw def ci lu ko neex jàpp naa ne bu demee ba réaliser toog na lii kat mu ngi ci mais waroon nañoo waxtaan xoolaat naka lañ koy defee mais également euh, euh, euh, publicité bi nga xamante ni tey dañu gis ne.

ay radio di def publicité yo xamanteni ministère moy jël jàpp ne kat c'est bon ñu informer français yi par rapport ak tangor bi di ñew mhm. waxuma lay épidémie waxuma la yu grave donc information bobu nga xamanteni état bi japp na ne dafa nécessaire pour mu jallalé ko. Mhm. nu mu koy jallalé mais c'est à travers tous les médias warul nek tout simplement. RTS lañ koy jox lu ci gëna bëri wala ñu jox ko média yo xamanteni ñoo gëna a le pouvoir. Hmm. mais au Sénégal sax démon nañu ba demeetu noonu. parce que hmm. convention yi ma lay wax ni ak euh, la LONASE mais ñu won information bo xamanteni état bi daf ko bëgg jallalé tout simplement ñu jox ko ci am média. Hmm. mais da doon nekk euh, ay yaa ma neex yow comprendre nañ que ne amna discours yoy tenir. ce n'est pas favorable à Ousmane Sonko nañu la encouragé nga gën koo def yooyu lañ fi gis te donc pouvoir boo xamante nii danga nga ne da bëgg jubal jubanti jàpp naa ne loolu mënoo ko bàyyi noonu muy continuer. d'accord léegi.